naa fi àgg saaro bés pénc waaw soo naa fi àgg saaro malaaka yi di wéy di bëgg rawoo ma fi yeesu fële ma sori. surtout juróom benn xaw a aar ñun fu kaa ren ci kaa bi bisimilah sa sama wax dama ci dugg si dugg wóor waaw man créditeur ñun am na si yàlla ñu waaye ñun créditeur ñun daal ci yàlla si rek. wan naa fi àgg digg ñoom malaaka yi di wéy di bëgg rawoo yi xëy fa yéex daal xam ak jipp de yàllaa ñuy gën ci malaaka mi ray xéefar ray ñu ñëpp yëpp koy ray xéefar ak jullit yëpp ku nekk sa tur bi nañ ko jëlee ma foofu am nga xob boo xam ne moo ko fa kana am ca sidratul muntaha malakul mawt ki nga xam ne mooy burab dee ma nga toog ca yoon sidratul muntaha ci lay ma foofu boo xam ne nit aw turam pëndent na mu xam ne ci yopp na su paree rek mu xam ne fanam jeex na su paree te ñuul mu xam ne fanam jeex na te xéefar la xobam woon ci sidratu muntaha mu mi root su rootee dëkkenu mu xam ne ba tey xéefar la mu dal di jox ndigal malaaka bëkk nii rek ñu ne ci càmmoñam ne leen gënneem jooy ma raw ak jur ñu nga xam ne jallare joo xam ne lam xam ci bëñ tooloo ma cëri doomu aadama te doomu aadama ji nekk am na ñetti téeméeri cër ak juróom benn fukk ak ñett su malaaka yi wàccee dal di ko dëbb jàllale jooju ci maqatal bi mooy digg bopp bi te wàcc cee génn di ñaari paase ña bañ bu nekk jàpp ci cër ci cër ndax roow yi dafa jaxasoo yaram wi te tey ñu taqali leen juróomi téeméeri malaaka di dippandoo ñu ngi jëpp mu yuuxu yuuxu yoo xam ne ñëpp a koy dégg lu mooy ñu ko diine rek ko déglu bu ñu yàlla bind rek ñuy jëpp di jëpp muy yuuxu ñuy jëpp ñu yuuxu ba dara way génn rek di génne rek soo maraate rek dóor golde ba mu nuur ci suuf suuf laa làq noonu ak yàlla bi suuf sànni mu dal ci suuf sa ca tegu soo suuf sànni mu dal ci suuf sa ca tegu ba bu may wàcc ci suuf si juróom ñaareel sax daal di fekk safara foofa kooku moom noonu lay gërëm gërëm na mu métti boobu la yàlla tegee de ma ngay génne malaaka yi koy def rek war naa si taatu waaye génne na ma malaaka yi di woy sigiraal rooy woy gëm ya nattan ak sigiraal génne naa it ci malaaka yi nga xam ne dañuy sigiraal rooy ñu gëm yàlla ak sigiraal barot ci côté du ko yëg bi ma baat ma ne bakkan bu gëm yàlla soo xamee ne dara desul lu dee moom itam mooy turam far ca lawil mahfuz far far ba weex aw xobam daanu jaaxaar malaaka ma daal di xam ne ci aw fanam jeex na te bu gëm yàlla la mu jox ndigal malaaka yi ci lay joor ne leen dem leen jël waaw ba di yàlla woowu te bu leen ko mettal ñu daal di jël lu gën a rafet ca aljanna ñu ne miiraaj ak yonent ba la ñu ne leneen ñu indi ko ko daal di ko ko wan su gisee taaxal loolu dafay bukki bëtam ba doo ko xet nga gis nag malaaka yi yorot yoroo ba ndànk ndànk ndànk di ko fóonal gëtt goo xam ne mos na fóon gëtt bu xëy na ni moo am su ko defee mu di ko fóontu ñu yorot yoroo la di ko tefal ndànk ba roxo ba doo génn te du ko yëg su génnee ñu daal di ko lëmas ci xarira bu wert daal di ko daal di ko feetal di ko feetal baax bi ci asamaan jëtt ñooñu gàttandu ko di ko feetal ba naa bi ci asamaan ña topp noonu ba ca asamaan juróom ñaareel ya fafale si gërë suudum saane ba nga xam ne yàlla aljanatul ma'wa malaaka yi malaaka yi defal noonu jullit bi itam ngir ñu bañ a yëg méttitu dee yàlla an ko yàlla yàlla an yéen ñu de yonent ñu wax ne dee jullit jaar na jaar ci moom te du ko yëg benn wàll yi mos naa wax ne moom daal bëggoon naa xam luy tegtal bu ne jullit métit su dee du ko yëg ndax ñu ngi janoom jullit ñi dee mu mel ni ñu ngi amee métit mu gën di gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko mi ngi ci alxuraan jàngal jàngal alxuraan mu waxal kaanu yu ay yoon yoon gisu ko mu ngi saa yonent xam naa waa ji baax la muy daw ne ko jàng naa kaal bi ba tey gisuma li la wax yonent ne ko jàng ko ci saaru Yuusuf mu jàng saaru Yuusuf wala maara ay naroo akbar naroo wax xabaar naa ay yéexoon naa saaru Yuusuf rek gëlëm mandiloon naa jigéen ña ba ñu dox seeni loxo te yëguñ ko ndem saaru Yuusuf rek a mën loolu waaw Fatal li yàlla am ci ay saaru de mu xam ne loolu la nëbb moo tax de métti si dee yi ñu métti ñëpp su gëm yàlla moom du ko yëg nga ñaan ni mag yi xëy ci gëstu ba ba ngoon jot ba digg ba tëj jot ngay fab dégg di ko jëm ca nefere wu mu bàyyi woon ca ca bàyyi nga li ko nag mën ngaa jëm dana ko yëg ko génn naa ci malaaka yi ñu ci gërëm di lu ñu ñu gëm yàlla ba duñ leen nit du dee wa saa bi ak digg na ma malaaka yi di wéy fii ci asamaan safana tey ngir di joxe ndigalu yàlla waxtu bi ñuy wàcce dañu léeg-léeg tey la jël way tey jëggee noonu la malaaka yi tey ci asamaan ya jaww ji ba wàcc ci suufam ndigalu yàlla parce que bataat bi ñu ne ma malaaka yi dañ koy jëkkante safana ak jëkkante borom jullit yi génne malaaka yi dañ koy jëkkante waaw ñu nekk ni ñoo koy yóbbu àjjana kon mu dab biraat bi ñu ne malaaka yi di way dogal am ron nit gis naa ci malaaka yi nga xam ne ñooy dogal nit ci diggante jaam yi alal ci dëkk ba boo fa def ci ci àllaaxira tàmbalee di tànni nag booba dañuy gisee li nga xam ne moom lañ jàngal ci pénc bi yàlla yëpp bu ñaareel ba ca ñëpp di dekkee seen diggante yeneen na ne ñeneen fukk ba ñu ne ñeneen fukki at ñu ne ñeneen fukki weer ñu ne ñeneen fukki bés xulóo mun ay xol yow ma itin bésëb koroog waa ajifat way jàq lañu waa ajifatul woo yëngatu lañu rek koroog dana am xol yoo xam ne dañoo tiita tiita tiita tiit bay kër këri de ab saar waa ay bët teen xaasinatul way torox lañu rek bëti borom ña nga torox mën a topp ndax ña nga jàkkaarleeg yàlla miñ doon mooy yàqoolu na danañu wax naa ay naa naka nun la mag doo doona ñun delloo la ñu fi laaxira di ca toor teefaru makkaara ñu ne Muhammad ne gannaaw buñ dee ba nëb ba kunu daan ñu ne toos delloo ñu dindaat ila kunaa gan naka nun ne saaman lii am naxira doon yi réwee kunu suñ dee ba nëb ba kunu daan ñu delloo di ñu detti xaaloolu ñu wax ne tilka googu la dellu jëm ci dund itam booba de ndem xam na karot noonu dellu la xasira dumburaa ji tartale ñu ne bu fekkee yàlla danañu delloo yi dootuñ mel nañ meloon de bu dee ba lépp ëppno dañoo jàpp yàlla rek naka mbindeef wóor ne fa inamaa yéen naka moom walinam ñaareel ba sajratun walin la waaxidatun bu di benn benn walin rek la israfil di wal fa idaa am tu latat comme ñoom booleem bindeef yi bi saayara yooyu nekk lañ ca saayara de bu ñu walee bu israaf yi walee dugg ba rek buy àgg ak ñëpp daal di ne toor dañu ca ca saaya mooy suuf si yàlla yëpp ci suñ ko jàng yëpp. saaw makkaandoor foofu mu wax leen solo alaxira ak du gàttale kattanal buur bi dinañ njëkk sa itam de pour gaaral ñi weddi tey ni ñoom itam la daloon ñu weddi woon démb rek moo leen di dal. voilà daal ndax di kër laa gis Moussa Soros Moussa ndax Soros yéen yàlla Moussa Soros na ñëwul lool. moo ko yore di ca Bakara ba fii gis naa daaw boo xoolee Korab boo boromam bi waa di jëkkaru al muqaddas yi wala wuñ sellal tuwaa tuwaa ba nga xamee ne yonent yàlla Moussa ma nga jëkkaru tuwaa doomu ci safara yàlla wax ko fa. bëri nañ ko tey Soros ak Moussa ndax yowoot ñoo dëkkoon ak yonent ci Madina. te dañoo jàngoon téere yu njëkk ya nga xam ne ni nga doon fi jàngut su leen di nekk li nga xam-xam yi seen téere yu njëkk ya dama su ko jaare loolu moo gën a tegtal ne mais ab yonent la rek di sab demal iraa saraana jëm ca saraana innahu naka moom taxaa beew na mu taxaa jéggi na mu daayare demal ca saraana saraana beew na jéggi na daaya fee woote ak yàlla loxol wa al ñaan ko al ndaka dana ma xoola illa an tazakkaa jëm ci bu nga laata ci bàkkaar rek ci gëm yàlla rek boo demee ne ko man lay woo ci nga wax laa ilaaha illallaah mu laawal la ci kéefar de waa ji yegg sama tegtal lay laa rabbika jëm ci borom sa ma tegtal la yoonu xam sa borom fa tax saa solo solo da nga ragal yàlla rek loolu la Muusaa gaaral Firawna laaya na ko biir fa araaw tam wan ko laaya sa kawteef ga al kubra gare aji mag mu wan ko kawteef gi gën a mag mooy itam war a xoola juróom yonent aaya yooyoon kaddaba tam weddi Muusaa waa saa tam mooy boromam de mu weddi yonent bi yàlla ba mooy yàlla mi ko bindi tam su ma at bara topp mu dëdd yàlla sant bi moom dana mu ndox ci yàq suuf te wut foofa dëdd di yàq suuf di tere ñi ña gëm yàlla ak gëm yonent yàlla Muusa ak di fexe sax nu ma la nga yonent yàlla bi. faxasara dam sang mbooloom jabaram ya ak xareem ya fanaaraa dam woote ñu sang mbooloom yëpp xareem yëpp daje ak jabarkat yi fa xaala dam wax ana man rabbukum maay borom seen laa laa bëri aji kawe moom saraaw na mu ne maa yàlla ji gën a kawe amul jenn yàlla ji nag ci sama kaw de boobu baax mu ëpp ba mu njëkkoon a wax waxoon na ca saaru xasas ne maa alimtu lakum min ilaahin gayri xaw ma jenn yàlla ji dul man léegi nag na ne suñ na tëlee ne jeneen yàlla am na it daal moom mooy yàlla ji man ji ak ab dew waa xasaru daaw daal ak ko yàlla de yàlla daal di ko lawal jabaaru xulsoo nakaara laaxirati muy muy mbugalam baat bu mujj gi waluura ak baat bu njëkk ba lu ko yàlla alage noonu waxoon na ne maa alimtu lakum min ilaahin gayri yàlla di ko muñal mu far ne ana rabbukumul ala loolu nag yàlla baal na ko dara ba mu waxee boobu baat moom foofa lañ ko daal di alage diggante ñaari baat yi mat na ñeent fukki at ñeent fukki at la Moussa diggante Firawna yàlla aral ko labal ko ca dugg ko ca baal ko doom de nati daalika naka aji naka la ci loolu ñu tuddoon laayam ko tam xalam ñu mën yàq saara ñu ñaan ka dana mu ragal yàlla de fukki at Firawna ñu mbëroo fu daw bay wax ak yàlla loolu day mu far ne mooy yàlla ñu gën a mat yàlla labal ko ci géej moom mbooleem xareem yam yaakaaroon ak mboolem jëm yaakaaroon yëpp suuf ci géej ci benn gendeeku képp ku am kal mën naa xalaame ci loolu de xam ne yonent yàlla Muhammad mi teew mi itam ñi koy weddi yàlla dana leen xalaat de dana leen labal de aa antum yéen ashaddu yéen a gën a tax xalqan ci bind ami sama ama samaan daa dee fii tegtali kattanal buur liy tegtali ñu itam suuf ci liñ mën a gis la ñu koy woon asamaan bu koy bii bu dëgër bii yàlla bind ko ndax yéen ñii weddi yéen a gën a dëgër asamaan am asamaan yéen gën a dëgër danaa tabax nu ko rëy ku tabax asamaan yàllaa ko tabax rabaa yëkkati na mu sam kaa ci sam ma mu kaw jëm indi bi hi doxab juróom téeméeri at te wenn jëm téye ko te tawaa kam xemale ko rek mu xemale asamaan gisoo fi kenn ku diix gisoo benn bën bën gisoo kenn ku dëng waa ko sa tam muur lay laa guddeem nga bu guddi jotee mu hadd ko lëndëm àddina yëpp ne tërës ak lëndëm waa xaraja tam génne doa yor yoram ba rek bu bët setee mu sankal jant bi bu jant bi ne daanu ci yor yor lépp mujj di leer de gannaaw bu mu nekkoon di lëndëm de ka man loolu mën da dekkal ku dee wala la suuf baada daalika ca gannaaw loolu de kaa dend na mu ko suuf si itam gannaaw loolu mu dend ko gannaaw bu mu jàngatee ni mu bindee asamaan gannaaw loolu itam tegtaliwut ne suuf lañ mujj bind gannaaw ga suuf si itam mu dend ko rek def ko mu mel ni mu lal tegu ci kaw géej gi te du yëngatoog yéen axraja génne na mu minaa ko ci suuf maa ndoxam ma te bam ko bam defee suuf muy seen dëkkuwaay tam xam ne yéen ngeen di lekk di naan dangal na ci ndox mu neex ngeen di ko naan ba mara farluwaayam mu saxal gàncax gi saxal garab yi saxal ñax mi saxal waaw dund bi ak meññeet yi nga xam ne moom la doomu aadama di lekk ak garab yi nag ak ñax mi nga xam ne seen i juddi da koy lekk wal jibaala daj yi arta samp na mu layam mu samp daj juróom benn téeméeri junne daj yoo xam ne juróomi daje jigéen jabaru Uhud ak Tadmir ca Minan ak Tuur ka Yàlla doon waxee Musaa ak Radwa ak Jéedi yi ne mu samp daj yooyu nga xam ne ñoo tee suuf si mataan bi bu mu di bi yóbbal lakum ñeel leen wali anaani ku am ñeel di du kër di suuf bindoo ñi mu bindoo ngeen dëkke ko di tabax di bay di faral seen ak jur dafa sa fa seen dund di am kattan loolu ak xam-xam boobu jëf jooju ku ko gis xam ne ki ko def am na kattan te ku gis li mbindeef yi nosoo itam nga xam ne ki ko liggéey ci xam-xam bu mat la ko liggéeyee kooku mooy yàlla ki nga xam ne moom rek moo yoo jaamu moom lañ war a jaamu wala ñu jaamu ko ko may te àllaaxira tim leen wax ne dana ñëw itam amul sikk dana ñëw fay daa jaa ati ndem dikk na faamatu njuuma nga alkubra nga de aji mag bés boo xamee ne njuuma gu mag ga feeñ na te mooy wali nam ñaareel ba di nga xam ne ci la ñëpp di dekkee jëm pencam yàlla yow ma yatazakkaru mooy bés ba dana fàttaliku linsaanu jëpp nit maasan ala mu jëfande keroog lépp loo mas a def te fàtte ko ndem ñëw la ndem hay la dañ ca teg sa bët keroog rek yéefar baa nga naan maa leeral kitaabi laa yuqaadiru saxiratan wala kabiratan ilaa ahsaha te burrisati te génne al jahim jahim li man yaraa ñaa ka dana mu gis ko su ko defee yàlla wax ne indi leen ma jaanama ñu malaaka ya dem xew ko juróom-ñaar fukk ak junni ci cala la cala gën a juróom-ñaar fukk ak junni ci malaaka ngëp ci ñoom mat ko indi pencam yàlla ñëpp jàll moom moom jahim de ba ko yàlla na lakkal ma ñëwee nag ñooy firi mu wundu firi ba def ñetti question yële nga xam ne moom lañ jàngatoon démb de fa amaa man faa mbaal kawe dina mu yàlla waa xara tam tam alxayaat dunya dundal àddina koo xam ne dafa weddi woon yàlla tam àdduna rek ba fàtte boromam fàtte alaxira tey nag jahim naka jahim yéen moom almaawa mooy taxawaayam de kooku moom bu keroogee rek mu dal yem safara mu jeex waaw man kaasa daal karagal na mu maqaama rabbi taxaw fa ba kanam boromam wanaa tam tere naf sa ba kanam ani la waa ci bànne xar ba kanam koo xam nag ne ragal na ne dana taxaw fa kanam yàlla ñu fat ni ko taxawaay boobu tax mu jàjj ba kanam lépp lu mu bëgg a def loo xam ne neexul yàlla mu fàttaliku ne dana taxaw fa kanam yàlla mu te mu tere ba kanam mu bàyyi loola nag jànn tala saal jànn hiya moom almara mooy taxawaayam de kooku moom muy dee rek di dem aljana ku bëgg a dem aljana na ragal yàlla yàlla na ne du ma booleel sama jaam yaara ragal mukk du ma ko booleel yaay kóllëre nag ma ragal la ko ca alaaxira de moo tax ñi ragal yàlla ci àddina aljana la ñuy dëkk ñëwoon yàlla nag ñooñoo perte de walaay am ñu makara laay yéen xaw ma xaasiroon perte nag firi woon na ko ca saaro zumar ko dinañ xaasiroon la si na xasiroo am fasam waale yi yawmal qiyaamati ala dalika huwa al-khusraan bi law min fawqihim zulal min réew min tahtihim zulal loolu mooy perte. yas'aluunaka danañu laaj la yow danañu laaj la ñoom yéefari yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani saat ci des tey ayaana mursaa ana kañ la ak seeram. waaye bés penc bi Muhammad di wax kañ lay teer ci lu muy nekk du ñëw fii ma ci lan la am yow sax min dikraa yi nag nga ci tuddam min dikraa yi nag nga ci xamam yow yonent sax lu la wàcc ci xam pencam yàlla kañ muy taxaw yonent bi sax xamu ko ci xay bi yàlla jagoo la bokk mun taa bay waayam ila rabbika jëm na ko borom sax xam-xamam bés penc kañ muy tabbi kooku yàlla rek ko xam de innama anta naka yow mundiru ma ñaxtaa aji waat la ka dana mu ragal ko yow nag da nga waat lépp jaamu yàlla boo xam ne ragal na pencam yàlla jawe na ko tuut ndax moo koy jëriñoo ka annahum daanaka ñoom mbindeef yi yow ma yaraw na aa bés ba danañu jaamu pencam yàlla lam yàlla ba soo saxuñu woon ci àddina ak seeni bàmmeel ilaa ansiyatam ndare ak takkusaan aw duhaa ay ke yàlla ak takkusaan de mbindeef yi bés buñ kéefar yi bés buñ janoo pencam yàlla dañuy jàpp ne adduna genn ngoon lañ fa am diggante takkusaan ak bi jëndi so wala diggante suba bi yor yor bi jot rek laafal nañ yor yor takkusaan yaaram dana laafal lépp ngir sabab sa gën a tuuti li tax ñu laafal yor yor takkusaan mooy fi jant bi toll mu di takkusaan ci sow bi su fi tolloo ci penku rek mooy yor yor loolu leen ak kanante ba moo tax ñu laafal ko ko ne du jaagee nag takkusaana moom yor yor yaaram dana wax kaw kabul xarxaaye giddiw ak xarxaaw xarxaaw dox la woon bu ne ca Makka bu biddiw am giddiw boo xam ne bu fenkee rek mu xeew dañu tudde biddiw ba giddiw ak xarxaaw